Ah, bokk ci jotaayu suñ borom gërëm. amiin yaa rabbi bisimilah amiin amiin ñu ngi lay nuyu dalal la ci plateau Petit Déj bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. aoudu ah, billahi samiil alim min ashaytaani rajim. Mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim. Mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala nuuril muminina sayidina muhammadin ah, ñu ngi leen di nuyu ak euh, ki nekk sama. sëriñ sëriñ mm. sama gauche. ak mm. yow mu nekk sama droite. soxna Coro di euh, nuyu ñi mu nuyu ñëpp pour euh, économiser temps. Mm. waaye itam di jagleel beneen nuyoo ci beneen dimension. muy Serigne Mahi mi nga xamee dafa def benn médiation boo xamee ni bi mu ko defee ci Darfour wala fële ci Soudan. daf koo deful tout un peuple. muy ñu koy amal ngërëm nag. peuple Sénégal bépp ko war a amal njëriñ ndax loolu dina yëkkatiyaat Sénégal te loolu itam yaakaar naa xulafaa yi war nañ cee gën a dox ci wàllu wu noonu donc loolu ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax mm-hmm. di nuyu ñi ma yabal euh, sëñ Mourtada Mbacke Lo fële ca diiwaanu Kër Mbaarik ak kiy organisé muy le nouveau maire de di la euh, Jili Lo ñu naan ko euh, sëñ Abdoul Qadir Mbacke waaye Jili waaw ñu ngi leen di nuyu ñoom bu baax ak xalif bi muy Cheikh Omar Senaba ak mm-hmm. Moustapha Cissé mi nga xamee ni moom bu jàllee moom mooy dafa mel ni bu doon lu ñu naan vis moom mooy vice am ndax euh, mm. bu jàllee moom moom ak ci famille bi kon ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa Mafatihal Bichri xam naa mm. lii moom lu xaw a yéeme la xam naa danañu ci ñëw mm-hmm. incha allah waaw jërëjëf euh, sëñ bi Fatou ñu daal di dikk ci li nga xam ne ni moom mooy sunu jeneen maam joo xam ne ni ki àjjuma tey jii mm-hmm. moom la ñu fas yéene waxtaane ci ay baax baax waaye tam ñu fi bàyyi tout à fait Thioro comme ni ñu ko introduire sànq rek euh, donc suñu invité bi Fallou euh, ñu war a waxtaanee ci euh, Cheikh Aliou ak événement bi nga xamante ne ñu ngi ko war a amal ci 11 juin bi sëñ Fallou ginnaaw bëgg a nuyoo bu ñu bëggoon xam kan mooy sëriñ Aliou Lo nan nga ñu mën a wax ci moom. xam naa dañ koy tënk rek. Mhm. Alaaji Aliou Lo du ñu nekk di insister ci ay waajuram di insister ci ay. yu mel noonu mais dañuy ñëw ci dimension bi nga xamee ni am na ku naan sax moom un homme multidimensionnel la woon euh, waxin la ndax la multidimensionnalité am na nu ñu koy tekkee nu yaatu ci wàllu ñu jàng affaire sociologie ak yeneen mais ñëwewuma ci dimension boobu man euh, multidimension dafay nekk jëmm joo xamee ni mi ngi gane àdduna 1915 euh, wàccub liggéey 2002. ban année la am. 87 ans. 87 ans mu doon nag koo xamee ni. Euh, jëmm la joo xamee ni dafa defoon adhésion ci yoonu murit mm-hmm. waaye ci domaine politique yi itam mu nekkoon euh, koo xamee ni Senghor la àndaloon di liggéey mm-hmm. depuis ay lu jiitu 45 waaye 45 lañ jëkk a ñëw ñoom ca diwaanu euh, Louga defe fa meeting bu mag a mag. Mm-hmm. PS ni muy nekkee yeneen bay agsi ci PS yëpp da ko faa fekk moom sax bibliothèque gu njàmbur lañ ko doon woowe mu nekkoon ci domaine euh, politique koo xam dem na ba man maa toog jaraaf moo yore woon sûreté nationale ma toog ak ku naan Dame Sall ak jaraaf ci jamono yooyu ci wetu intérieur ñu fekk ko bureau mu ni kii de la jëmm ji moom la baayam euh, Senghor doon woowe la carte d'identité du parti mu doon jëmm joo xamee ni nag euh, ci wàllu woowu daf caa dem ba takkal ko ca garaat yi nga xamee ni yëpp daanaka moom la ñuy takkal doomu adama ci wàllu politique. Mm-hmm. sengoor de kon wëllëreem nekkoon xaritam waaye fonkoon ko lool nawoon ko lool. waaye ci côté yoonu almuridiyatu itam Cheikh Mamadou Fadal ñëpp dañu yaakaaroon ni mooy sëriñam. Mm-hmm. ndax moo ne ko woon demal ca caat nga nga jébbalu ca moom. moo tax Cheikh Mamadou Mourtada am nañ ni mooy taalibeem bi njëkk am ñu ni mooy ñaareelu taalibeem walaw ci zahir moo magoon Cheikh Mamadou Mourtada ndax Cheikh Mourtada mi ngi gën a àdduna 1921 waaye euh, mu mu tarbiyewu ko dem ba làq ngërëmam te mu ñaanoon yàlla itam buy génn àdduna moom da koy fekke booba Cheikh Mamadou Mourtada lu xaw a doy waar mi ngi amoon yoon wu mu waroon a dem Mauritanie waaye ci mbirum yàlla am lu ko faagloo am loo xam ne tax na mu fomm ko mm. bi mu wàcceeb liggéey itam moo ko taxaw taxawu goo xamee ni maanaam ba léegi nit ñi dañ koy man boobu maa ngi woon Amérique ñu ñu ma koy nettali ni mu demee woon mm. loolu mooy tënk gi waaye ci côté euh, yeneen turuq yi itam dafa yore woon ba mu benn esprit boo xamee ni mu daan màggalee noonu la daan gàmmujee itam euh, am na ko ma wax ni ma Cheikh Ahmad Tidiane si al Maktoum moom moo ko daan wax Cheikh Ahmad Tidiane si Maktoum mu yàlla la maanaam bëgg a wax dimension bi mu yore woon. mu ni moom mooy deuxième personne bu ma dégg mu ni Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum mu yàlla la mu yàlla la mooy yàlla moo ko baaxalee ni mu mel def ko ni mu mel. ci wàllu domaine tudd naa ñaata ñaata domaine tudd naa wàllu politique. aspect euh, politique tudd naa religieux. mais soo doon tudd domaine wàllu agriculture itam moom Mamadou Fadal da ko yóbbu ñaari yoon màkkatal mu karam benn bi ci yoonu ndox mi la bi ci des yoonu avion bi la. mais demoon na ba jox ko jips li ñu naan jips booba lañ koy woowe mooy 4x4 yi daana ci baye non baykat bu mag a mag yore woon ay hectares yu bari di ko bay jàmbaare ci wàllu woowu lool. waaye itam fu mu daan gis ci côté social ay mbir yoo xamee ni teguwul ci yoon wala ñoo xamee ni nar nañoo def ak euh, fantasiru mooy tàqali ko mm-hmm. ay problème nar am dana jóg dox ca tànkam ba nga xamee ni ñagas-ñagas ya naroon a am euh, dana dañ mm-hmm. donc voilà en gros Euh, li nga xamee ni mooy boo ko doon commencé mu mu taxawal nag lu am solo Cheikh Mamadou Mourtada Mbacke loo mii nga xamee ni moo mooy mooy jéem a perpétuer loolu di coordonnateur bi nee nañu bi ñu ma tuddee ba noppi ca suba ga mi mi ngi gane àdduna moom 1961 moom Cheikh Mamadou Mourtada normalement mi ngi seetaan euh, nee nañu ca ngoon nga Cheikh Mamadou Mourtada ñëwaat na maanaam mel ni ku ko tuddaat waxin la maanaam ñëw ñaanal ko def lépp ndax tudd gi moom tudd yenn lay doon loola nag euh, daanaka ñu ngi ci cinquante troisième édition bi euh, bi mu wàccee liggéey ak léegi ñu ngi koy continuer di ko def xanaa Covid bi fi awak yu mel noonu événement boobu xay na dañu ci ñëwaat. Euh, tax voilà événement boobu yéen ko defee ci mbari Kër Mbari Kër waaw M B <laughs> Kër Mbari boobu hmm. nan la am lié ak ki nga xamante ne mooy sëñ Alioune Rose hmm. Hmm. Ah? ko fondé ou bien. non non Kër Mbari déedéet. Euh, moomu moom mooy fondation loolu daanaka fi mu ne Kër Mbari mi ngi bëgg a jege ñeenti téeméeri at. loolu doo sëñ Mbari mi ngi ak 4 kilomètres et demi sur la route de Potou. côte oh. ouest bu maanaam mm-hmm. ci. Euh, sowwu Louga la nekk. mais soriwul dara centre ville maanaam 4 kilomètres et demi la sur la route de Potou. d'accord boo ñëwee ba croisement da mel ni ku jëm Potou. d'après li nga wax léegi mu nekkoon ab religieux nekkoon tamit politique parce que socialiste la bu fekkee ci Senghor. Mhm, mhm. donc pur et dur des fois dañ naan religion ak euh, li nga xamante mooy politique mënuñoo ànd. parce que euh, politique amul benn vertu. mais on ak ki nga xamante ne am na ñu naan waaw am na ñu naan xam naa li nga bëgg wax am na ñu naan politique amul benn vérité mais boo gisee téere boobu ñu bind te américain moo ko bind xëy na duma ñëwaat ci lépp mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ñu teg numéro uno mooy ndëmba wan mhm. te du doon rek dimension spirituelle bi mais ñaar yëpp la temporellement et spirituellement moo tax ñu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam um, li fi masa gane àdduna moom moom moo jël raw gàddu gi mhm. pourtant jël nañ fa Omar ibn Khattab ñu ngi ko yóbbu ca boore 40 nangam wala nu ma position man su ma doon def du ma noonu mais tudd nañ ci ay Hitler tudd fa ñeneen ñu bari ñoo xamee ne xay na man su ma doon dugal du ma leen du waaye li ma fa bëgg a wax mooy politique bi nga wax bu dee mooy léeg-léeg gars yi ni ni ñuy gérer ab cité mais boo demee ci marché bi sax daan ne tey de sukkar si dafa cher yaa ngi wax ci politique mhm. boo demee ni matt mi kat léegi na waar gaz bi dafa yokk yaa ngi wax ci politique donc sunu lépp dafa am rapport ak politique mais nanga koy defee kay ndax alaaji Aliyu mas naa dem ci kër nar faa fanaan kaamilu alxuraan amu fa mu ni déedéet kon moom du fanaan day fanaani kër mbaay mm-hmm. noonu mu nekkee woon ci politique bi itam ku ko xamoon xam nga ko ci suba teel muy duruus alxuraanam di jàng ay xasaa yi dem di def lépp donc loolu danañu ñëw ndax journée bi yooyu yëpp da cee nekk te daraan wax itam li may li may taxawal fii di ci woo Cheikh Mouhamadoul Mourtada mu fiy fanaan ba xëy suba ci yor yor naaj muy doog a dem mm-hmm. danaan lépp la ñuy tere Touba dama koy tere fii kon nga xamee ni moom te itam musumaa dégg te ci politique ni mu jaxasoo musumaa dégg mu wax kàddu gu ñagas benn adversaire politique am musumaa dégg mu jëw muy lu jafe-jafe te jëw xam ngeen ni dafa doy waar lool ci islam xëy na loolu te indi ñu fi li ñu waroon a jëkk a commencé sax bi ñuy door dama ni woon mënoo wax ci àllaaji Aliyu loo wax Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam ne dañ ni woon mooy ambassadeur u mouridisme tournée yi mu doon def ci biir Afrique. ci Europe ak Amérique. Mm. waaye waroon na ma wax ci Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamee ni nag moom mooy sunu was wasila ñun ñëpp. Mm. te nag ci dimension piété boobu. piété ci boppam. normalement mooy nekk temu ren bi ndax ak jukko yi ndax bu ñu ko waxee rek ñu ngi wax jukko yi ndax jukko yi salfaañoo nañu lool. Mm-hmm. te bu dee dañuy tànn normalement loolu la ñu waroon képp kuy ñëw même boo yëkkati juróomi minute nga waxtaanee ci naka la ñuy fexee ba jukko yi ba ndax dama yi. dafa nekk partagé. am na ci loo xamee ni tey jii dañ daan wax paternel léegi ñuy wax parental mais am na ci loo xamee ni mi ngi féete ci côté gouvernement am loo xamee ni mi ngi féete ci sëriñ si ndax dañoo am ay sëriñ soo xamee ni dañ ni ñoom kat wommat leen ñu bañ am ngërëmal suñu borom. voilà pour ñu wax largement ci li nga xamante ne mooy journée bi ngeen war a amal le juin donc di 53e mhm. donc édition ka ngeen ko tàmbalee ku initié li nga xamante ne mooy màggal boobu. mi ngi bëgg a yegg dama ne sur 53e édition kay bu dee 2022 boo xoolee euh, deux mille 2022 nga nga divise nga kii rek da nga xool euh, boo ci dindee 53 ans da nga xam ni muy toll maanaam yàgg yàgg na daal maanaam bi ñu ko commencé léegi. Mhm. daanaka mën nañ ni les années 60 la ci fin 60 yi. Mhm. boobaak léegi ba léegi mi ngi dox. Euh, muy dox nag ba nga xam mille 2002 ca. coupe d'Afrique des nations ba dama koy rappelé wu ndax man boobu maa ngi Seattle Washington pas Washington DC. ñu yëgal ma ko loolook léegi moom it yaakaar naa ñu teg fi battement bu ay ñaari at wala benn at moom mu ni daal lii bàyyi ko mu mu sedd euh, baaxul mu jël ko yaakaar naa 2004 wala 2005 lañ jëkk def édition boo xamee ni sam papa fekkewu ko boobaak léegi nag à part Covid bi 2020 et 2021 année bu nekk ñu ngi koy def euh, ñuy wax nag ni. Euh, ñi ci woo jullit yëpp mais war nañoo ñëw ci ñi nga xamee ni moom Cheikh Mamadou Mourtada dafa wax ni ñooy parrain yi parrain yi damay euh, bañ a juum Serigne Dame Diop Xanda moom commerçant la à Louga kooku ci parrain yi la waaye kiñ naan Alxaaji Dame Diop Mansour moom muy industriel Dakar ci la marraine bi nag moom Euh, sunu sœur la moo nàmp jox ñu mooy Diamalo soxna Diamalo décédé en 1998 euh, day am journée bi day am le 10 ak le 11. Hmm, ci waaw fukki fan yi euh, fukkeelu fan bi bii sax boo waxee da nga naan Zul Hijja Zul Qiyada ni ni ni juin ndax ñaari weer yi dañoo ànd bii yoon xëy na danañu tàkkalikoo ji ca fin ba ndax bokkuñu fuñ jëm. Hmm. le 3 tey yii niñ koy waxee ci mois de juin noonu la donc léegi journée boobu itam day am ngontal maam jaar ngontal maam jaar loolu nag marine bi mooy jamaloo mais bis bi ci boppam bisu samd bi alquranul karim di ñuy jàng duruus xasaayid yi ak conférence yi ci diggante bi mais day am itam ku mel ni à l'honneur yaa sëriñ ahmad saxiir loo mi nga xamee ni moom moom sëñ murtada mii moo ko jàngal jàngal abdou salaam abdou salaam mi may bëgg a tudd jàngal ma man mi alquranul karim dana am itam bàyyi sëñ daam mi nga xamee ni ñun ci daaraam la ñu doore woon ca Kër Mbaarik bu jàllee nag Abdou Salaam Lo mi nga xamee ni moo ñu yóbbu woon ndax moo ñu jëkkoon daaree kooki moom it décédé en 2005 édition bu 2005 bi fekke na ko gannaaw gi la doon ñëw ñibbi si Dakar far def choc ca ca ca choc boobu ca la wàcceb liggéey donc kon comme ni ma ko waxee woo à l'entame euh, ku mel ni Cheikh Oumar Sène ba muy xalif bi mm-hmm. dañ yaakaaroon ni une temps la ñuy am xam ni moom day ñëw ànd kook nun mais comme dafa xaw a magal tuuti. mu ni woon kon buñ ñëwee rek mel na ñëwal nañ ko fa ñoo fi ñëwal itam Moustapha Sissolo ak ñeneen ñëpp ak ki nga xamee ni moom mooy le nouveau maire de Ngidi la bi nga xam moom organisation bépp ci loxoom la nekk. Mhm. moom sax xëy na bu doon jot gi mayoon na ko mooy ñëw teewe lii donc mhm. loolu mooy bis bi ci solo si ñu ci woon ak Kër Mbaari gépp mhm. ndax ca la ñuy commencé le chef de village Alioune Badara Lo. imam Serigne Dame mi nga xam ne dafa yore daara di sunub jarbaat population yi nga xam ni yëpp ñoo nekk ci biir diiwaanu Njàmbur ak ci Sénégal. incha loolu loolu. Mhm. moom mooy tënk gi xam naa ma permettre ma ko rek lu gàtt gàtt. maanaam Cheikh Mamadou Mourtada man maa ngi rappelé wu 2004 bi may ñi 2003 euh, bi may ñibbisi. Mhm. la maam moor yabal ko sant géey ni ko demal ci sëñ bi mu ñaanal ko ndax dama ni ko man kër dama am intention dem Sénégal am liggéey bu ma fa def. Mhm. booba am na gëstu yu ma gëstu ba jàpp ni war na maa ñëw nag ci réew mi am lu ma fi def. Euh, Cheikh Mourtala année boobu la géej New York ndax 2004 la wàccub liggéey. Mm-hmm. mais kër googu rek boo xooloon sa machine def nañ ca 600 000 yaakaar naa 600 000 dollars. te 55 000 yëpp moom moo ko fournir. Mm-hmm. bu loolu jàllee gis ngeen kër yi nga xamee ni moom la def ci biir euh, Afrique ndax moom 1943 fekk na muy def taw booba ñaar fukki at ak benn la yam wala ñaar fukki at ak ñaar muy dem da ay tournée ci biir Afrique ay mm-hmm. Côte d'Ivoire ay Gabon yeneen. mais. bu ñu jógee foofu mu tàmbali def tournée européenne yi nga xamee ni léegi du benn baytu sëñ Touba rek wala li ñuy tuddee ay kër yoo xam ne nañ koo qualifié yu yu mm-hmm. islam mais dafa créé yaat euh, mm-hmm. leneen loo xamee ni lu bees la maanaam ba mm-hmm. léegi xam ni euh, yaakaar naa maire bi naan Dinkins moo ko moo ko joxoon feu vert pour ñuy taxawal bis boo xamee ni bu mag lay doon au mois de juillet foofu ci New York loolu tënk la mhm. ci wàll wi nga xamee ni mhm. mooy Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam ne mhm. naa leen boo koy xool moo tax ñu tudde ko ambassadeur bu yoonu Mouride bi mooy nekk ambassadeur itinérant bu yoonu Mouride bi waaye nekk ko itam ci côté boo xamee ni yóbbu na ko ci dafa def ay futuhaat islaam mu yóbbu ko Mouridiya gi mu yóbbu ko fu gën a yaatu macha allah di ko ñaanal Mourtada Mbacke donc di ziar yi nga xam ne ñoom ñooy njabootam gi nga xam ne ñoom la fi eh, suñu borom bàyyi ba heure bi di la a baax la eh, sant di ñaan yàlla rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi nañu ñëw incha allah rabbi le le 10 ak le 11 comme ni ngeen koy defee mm-hmm. foofee ca diwaanu eh, Kër Mbaarik incha allah rabbi di la bàyyi nga tàggatoo ak téléspectateur waaw benn mot rek bi ma santee soxna si di la mm-hmm. sant di sant ki sama góos Serigne mm-hmm. Serigne Gueye Euh, sëñ Baara. Euh, moom bu dul woon nu te tee moom liggéey bi mu ci def. Mhm. on n'aurait pas eu euh, ce plateau. donc kon ñu ngi koy sant bu baax il est à Louga Baara Dieng. d'accord gërëm maa di wax itam ni nag mhm. Walfajri sëñ Sidi Lamine. Mhm. yàlla na ko yàlla xaare ci àjjana yu kawe ndax dafa def liggéey bu rëy rëy. yàlla nag moom. moo yóbboo moo ko yóbbu waaye Sénégal soxla woon nañ ko lool surtout bu ñu àggee ci yenn moment yu tumultueux àgg ci ay jafañ-jafañ ay difficulté ci wàll yu baree bari